Sénégalais se sont posés waaye itam waaye est-ce que nguur gi moo ko teg est-ce que du itam taxawaay ñooñu moo moo indi leen même donc ce sont des yoo xamante ne ku ci nekk rek am nga euh, sa xalaatu bopp boo xamante ne am nga ko ci euh, question bi donc c'est vaste moo taxit antenne bi dañ koy dañ leen yi nga xam ne yeneen ñuy seetaan ngeen amee seen propre euh, gis-gis ci mbir mi ngeen di wootee ngir mën ko partager ak sénégalais yëpp ku ci nekk rek mën cee def na keneen rek ñu enchaîner 77 810 90 na nga def. maa ngi ziare. naka waa Mbour. ñu ngi fi baax. ah ki woote léegi de Mbour la nekk waaye dafa mel ne yaa ko tane de moom moom amul réseau. ah. <laughs> nee naa nee naa ko. moom de day am réseau moom. waaw loolu la de des fois réseau bi moom mooy loolu. acca bismillah. waaw damay njëkk samay kàddu sant yàlla bu baax rek. Mhm. ci taxawaayu Sénégal yi. Mhm. ci taxawaayu jàppale ki ñu jàppale Ousmane Sonko. Mhm. ndax lii lépp. bu ngeen seetloo. Mhm. depuis deux mille dix neuf ba léegi. Mhm. Macky Sall liggéeyatul amatul soxla amatul yitte gis yitte Sénégalais mhm. ndax lan Ousmane Sonko. jaral ko mu génne ay milliards yu bari génne ko ay armes. jaral ko mu génne lu ci àdduna kala du sax Sénégalais Ousmane Sonko rek deux mille dix ba léegi. mooy lan Ousmane Sonko parti beeg ku ko jege wala koo xam sax Eh, Sénégal kenn du la lijjantee def ci ba élection mhm. waaye depuis boobu ba léegi muy def yàlla na ko li ngay def dara du jàpp. parce que nii la mu bëggoon mooy Pastef benn membre ma ma ku bokk Pastef du eh, eh, présenté wu ci candidat yi. Mhm. fekk Sénégal yi xam nañ loolu. boo gisee guddee bëccëg suba ngoon ñu ngi jël suñu crédit jël suñu temps di woote di wax. Mhm. Macky Sall bis buñ ko bàyyi woon Ousmane Sonko Diomaye Faye fay Pastef képp ci bokk mhm. waaye am nañ fulla ak fayda xam ne Sénégal gii ñoo ko moom mhm. te Sénégal ñun ñoo ko moom te dañoo bëgg mu baax mhm. duñ bàyyi suñu loxo duñ taxaw nan yàlla baax na ak ay ñàkk yaakaar déedéet dañuy taxaw fulla ak fayda lii ñu amee fulla ak fayda nag ba Basiiru jàll ci la ñu continuer ba mu jël réew mi incha allah rajo. d'accord léegi léegi yow. sànq maa ngi mmh. maa ngi am euh, benn laaj mu laaj suñu papa euh, Chérif. Mmh. laaj boobu itam dama la koy dama la koy jagleel ndax yéen euh, daanaka ay militant ngeen ay ay ay soppe ngeen. maanaam mmh. Ousmane Sonko mi bañ a nekk candidat ak Bassirou Diomaye mi nekkee candidat ndax yéen am ngeen yaakaar xel ne gars yi danañ gaay yi danañ ca toppam maanaam ni ngeen waxee ne Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko bëgg ko campagne ndax am ngeen yaakaar ne gars yi danañ ca topp. baax a baax a baax xam nga lu tax maanaam li am solo ba ci bari na senegal yoo xam ne nii wala ñoo xam ne ni ay dañ leen yónni woon fay leen ay millions yu bari teg leen ci ay palato ñi ay kilifa diine ñi kilifa tariyaax ñi ku ne ñu gëmloo ne maanaam jëmmi Pastef ci boppam élection yi di ci def mhm. te fekk ñoom bi ñuy xeex naan Ousmane Sonko du bokk ci candidat yi ñoom xamuñu Ousmane Sonko Ousmane Sonko lim teg projet ñun li am solo mooy projet bi te projet bi te ñëpp senegal yëpp xam nañ ne bis bu demee ci élection yi day jël élection yi. Mhm. xam nga Ousmane Sonko boobu bu bokkee ci élection yi day bokk sax ban bu bokkee midi Macky Sall day ñàkk waaye bu Diomaye bokkee onze heures day ñàkk. Ah? bu Ousmane Sonko bokkee midi. Mm. Macky Sall day ñàkk waaye fekkee Diomaye moo bokk onze heures Macky Sall ñàkk élection yi. fu leen leen teg wax jooju. ma teg loolu mooy. Sénégalais yi xam nañ lan mooy projet Ousmane Sonko projet bi du benn jëmm doomu aadama projet bi pour luy suqali Sénégal la pour yee Sénégal yi delloowaat leen seen àq ak seen yelleef moo tax Sénégal yi yàkkamte nañ la vingt cinq jot bañ génn ñoom ñëpp balaa dix heures ñu tëj euh, ñu tëj bureau de vote yi onze ñu ne mag damay fay gañe na premier tour te li ma la wax ni Sénégal yi yëpp ñoo ci mànkoo fas yéene koo def ndax maanaam Macky Sall nii mu yore Sénégal ci dictature ci xoqal Sénégal yi di tëj jàpp ci rey di def lu ko neex xam na ne loolu mënut a continuer Sénégal yi am nañ fulla joo xam ne nii Macky Sall mi duñ bàyyi bu fi ku ko ku dem nag moom sax di jiitewaat réew dund gu cher yi. Mhm. ah maanaam kenn mënut a faju mhm. di napp nit ñi. Mhm. ku ñu wax nga jàpp tëj di tuumaal nit ñi tuumaal yoo xam ne lépp yaa ko def. lu mu tuumaal euh, euh, doomi aadama yi rek ñoom ñoo ko def ba pare nee na ñoo euh, ko xamal Sénégal defe ne loolu mën naa nekk mënut a nekk. Mhm. ma profité waale bala may jeexal di ñaanal yàlla xale yi xam ne ñoo faatu woon ci manifestation yàlla li yàlla yërëm. d'accord xam ne seen mission yàlla ngooy téye ba te mhm. du nax saay moo xam ñi nekk ci géej gi ñu faatu ci géej gi moo xam ñi gàkkaar faatu ci manifestation yi. Mhm. di ñaan nag ñi nekk ci solo ci kaso yi. leneen Macky Sall génne mu neex ko ak mu naqari ko Macky Sall amul lu ñu ñaan du moom mu ngi ci a campagne sax koo xam ne a campagne naa la ko wax benn jour nee naa la hmm. ñaar yooyu am Macky Sall mooy tànn bu ko neex moom mu jógee ci mu jógee ci palais bi dugg ci kaso bi Diomaye jógee ci kaso bi dugg ci palais bi <laughs> na xool bu ko ci neex rek ban moo ko ci suwaar na ko neex moom mu jógee ci palais bi dugg ci kaso bi Diomaye jógee ci kaso ba dugg ci palais bi. d'accord xam naa dañ ci gën a jërëjëf. merci maa ngi lay jaajëfal di la nuyuwaat bu baax a ah. Ah, mbir mi doy na waar de ah, xam naa ne palais prison moom chaque fois dama koy waxee rek ñaari pee la xam naa moom euh, palais prison ñaari pee la de palais ak prison wu ñu de euh, bu nekk mën naa am jaajëfal bu baax a baax euh, Ibrahima Pape Ibrahima Faye nee na allez retirer vos cartes d'électeurs et restez calme sans stress avant que les avant que d'autres surprises arrivent c'est ça la solution Binta di ko dëggal ci loolu kon gars yi bokk l'appel est donc euh, képp koo xamante ne citoyen sénégalais nga bind woon nga ci euh, liste électorale yi euh, bi révision bi amee donc jamono ji ñoo ngi lay ñaan nga dem retirer sa carte électeur ndax ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février nga mën a def sa devoir citoyen maanaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy soppi réew mi soppi ci naka parce que bu ñu fàtte ne bi la bokk na ci gulet ñu ne kan nekk candidat sortant ci élection présidentielle yi nee na du bokk donc euh, président bi nga xam ne moom fa toogoon du bokk donc ñi nga xam ne ñoo nekk candidat yëpp ñun ñëpp ay candidats yu yees lañ donc euh, dañuy daal di pal njiitu réew donc euh, am na essentiel aussi képp koo xamante ne yaa ngi ci liste yi nga dem retirer sa carte donc merci Pape Ibrahima le message est lancé salaamaaleykum. oui salaamaaleykum. mbokk bi na ngeen def. sant yàlla baax yéen nga ngeen jàmm. ñoo ngi sant yàlla di muñ ko muñ foo ñu woowee. maa ngi depuis Paris. naka waa Paris. waaw ñu ngi bu baax a baax alhamdulilah. Ah, yàlla na sant yàgg. Euh, amin amin amin ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi seen liggéey bu baax a baax. merci beaucoup premier ministre Amadou Ba la fa bàyyi. ah Amadou Ba de moom bëgguma déggee waxam sax vraiment. ah moonte de candidat la de moom ba ma jógee pare nee nañ ah. pare pare nañ gongo moom la ñuy wooteel mun na la jël réew mi. de moom Amadou Ba instant bi ñu ñu instant bi ñu. instant bi ñun jomaay rek mën nañu wax dëgg yàlla Amadou Ba moom. Ah, non yow sëñ bi kañ man li ma gis man li ma gis ci réunion bennoo ak ña ànd ak bennoo loolu lu ñu inventé de ñoom nee nañ France ak la yëpp ne nañ gongo Amadou Ba nan nañ ko fal mu nekk président bu Sénégal wutu fi président Macky Sall. boo déggee dëgg maanaam dégg-dëgg fii moom fii moom fii moom fii nii par exemple France gii nii Amadou Amadou Ba moom du fi am dara. ah waaw fii moom du fi am dara xam nga ñoom. waa Benno danoo yàgg nekk ay par exemple stratégie yoo xam ni amul njëriñ quoi di di di di wax wax yoo xam ni kii quoi amul sens quoi di inventé mhm. mais mais la diaspora moom bul sonn Sonko mooy mooy maanaam Sonko moo ko waaw Sonko moo ko moom fii Sonko la ñu wooteel du sonn bokk Sonko ci élection yi parce moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen recalé donc du mën a nekk candidat waaye nag la Pastef doon communiqué wala sax tàmbale ko gën a communiqué maanaam Diomaye mi nga xam ne nangu nañ candidature am mu bokk ci ñaar fukk yi xëccoo réew mi ndax am ngeen yaakaar ne euh, donte ne moom Ousmane Sonko ñoo bokk ñoo bokk parti Ousmane Sonko tabb ko sax mën nañu wax mu nekk seen euh, candidat moom mi lee nag askan wi dañ ca topp comme ni ma ko laajoon sànq Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko ndax message boobu noonu yenn partisans yi ak ñi nga xamante ni militants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom faruñu fenn danañ ko nangu ba wootal ko loolu ndax am ngeen ci yaakaar. waaw par exemple pour commencer dañuy dañuy am dañuy par exemple di métti lu quoi li nga xam ni moom la moom la conseil constitutionnel def bañ a retenir candidature Ousmane Sonko mais damay rappeler rek par exemple Pastef dafa doon parti boo xam ni. doodu nit moo ñu intéressé quoi ñun par exemple ab projet moo ñu intéressé ab projet boo xam ne Sonko Sonko da tëral bu jomaa yéegeeg Sonko yéeg ak par exemple keneen ku mën a yéeg l' essentiel mooy li ñu wax ci projet bi nañ ko appliqué waaw ñun ab projet moo ñu moo kii quoi mais par exemple du Sonko du kii quoi du Sonko du jomaay merci léegi nag comme instant bi ñoom nag comme instant bi ñoom nag éliminé nañ Sonko ba Sonko joxoon jomaay fay waaw jomaay mooy Sonko ndax ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo nekk na inspecteur des impôts Sonko ba mu yoree syndicat yi ba mu fa jógee Diomaye la ko jox Diomaye moo ko waaw kon boog bu ne par exemple moo Sonko am nañ ci moom yaakaar mhm. te xam ne ne moom tamit bu fekkee dafa jël réew mi tamit moom jamais jamais maanaam mu trahir Sonko mhm. waaw te am nañ yaakaar ne am nañ yaakaar ne élection yi nii bu élection yi nii bu fekkee jaar na yoon mhm. mooy li waajo li waaj wax sànq rek midi midi laa wax Diomaye day gagné réew mi waaw ah, waa affaire nag ñoom nag tam nañoo dem par exemple ay élection di par exemple imprimer ay ay kii yoo xam du mat waaw lool nag maa ngi koy def ci xëy nañu quoi nan préparer ah. tam ñu imprimer fii ay bulletin jumaa yoo xam du mat bu ko defee gars yi jeexal bulletin ñu naan non non non eh. il faut que waa waa Pastef il faut que maanaam yi ci hmm. noo yi dana leen nax ba yi wax ko hmm.